dénk maanaam mbooloo moo xam ne nii da nga leen am ci ñoom ci ci ñuy doxee nga bëgg leen a laabiire ñu defee neneen loolu dénkaan la tudd su fekkee da ngay wax ak mbooloo mi tam ñaari taxawaay moo ci am benn ñu ne la waxtaanal ñu ci tomb sàngam nga xam da ngay leeral tomb bam leer nañ la ca lam làmboo ak la la ca nekk ci ay lu ñu war a jubbanti nu ñu koy jubbantee looloo mooy conférence ci misaal tey bu ñu la joxee ne la waxtaanal ñu ci alxitaabul murid yi boobaa yow boo ñëwee lañ sakku ci yow mooy nga leeral rek lan mooy xitaab lan mooy xitaabul murid yi yan responsabilité moo ci nekk yan def défi la am loolu ngay leeral ba mu leer nañ su fekkente ne nag dangaa ñëw ngir waxtaan ak nit ci loo xam ni day yëngal seeni yëg-yëg dangaa ñëw ngir waxtaan ak ci loo xam ne da di xëcc jëme leen ci sa pas-pas yow wala boog la ngay wax bëgg ñu gëm ko boobaa xutba lay tudd boobaa mooy loolu nag moom la ñuy ci moom la ñu faral di wax ñun maanaam xutba presse maanaam discours kon ñeent yooyu nag jaxas guñ koy jaxase dafa bokk ci défi yi nga xam ne nii am na ci discours murid yi kon ban ban liñ ciy wax lu mu doon ndax waxtaan la ndax ay ndénkaan la ndax conférence la ndax xutba la te bu mu ci nekk nag dafa am ñoo xam ku nekk ak fa nga gën a mane moo tax nit ki nga xam ne ni xutba la man moom mën naa wax nit ñi loo xam dañ leen yëngal mën naa ñëw fii léegi yëngal baas bi ñëpp di daanu ñëpp di daanu ñëpp di yooxu te la muy wax maanaam loolu xutba la ndax day dem ci yëg-yëgu nit ñi waaye nag ki nga xam moom day ñëw xam lay waxtaanee dañ ko jox tomb muy leeral kooku day leeral rek la muy leeral nag ndax nit ñi dañ ci ànd ak moom wala duñ ci ànd ak moom loolu beneen affaire la kon ñeent yooyu léeg-léegi moom tam du leer ci li ñuy def ci biir discours bi léeg-léeg gis benn jataay sax ñu boole ñaar ñoo xam dañ leen ne def waxtaan wi waaye kii moom xutba lay def kii def conférence te ñoom ñaar duñ bokk lu ñu wax mooy war waral léeg-léeg nga gis wax ba noppi keneen ñëw wax daanaka day xaw a safaanoog lam doon wax ci njëlbeen moo tax léeg nga dégg ci murid gi ñu naan diw day yëg di wax diw moom day xalaat day day day day yër di wax ku yëg di wax ak ku yër di wax fexlan am na kii yëg di wax moom xutba lay def kii yër di wax nag conférence lay def kon loolu itam ñàkk gu muy ñàkk leer ci léeg-léegi bokk na ci défi yi nga xam ne ni ngi surkan kon war nañoo leeral exact lan lañ bëgg a jàllale ci nit ñi ak la ñuy jàllale lu ñu tudd maanaam orateur yu bari itam discours yu bari yi discours yu bari te léeg-léegi muy wuute seen biir ba tey da ciy feeñ te loolu la koy waral mooy formation bi waroon a jiitu laltaay ba nit ki am ay xam-xam yu mat ci la muy la muy bëgg a waxtaane loolu dana feeñ dana ci feeñ bi ci des mooy waxoon nañ ci njëlbeen gi mooy daanaka discours yëpp yi ci yëpp xutba la waaye du ay conférence maanaam li nit ki li muy gën a def mooy yëngal yëg-yëgi nit ñi ci nett li ay xar baax li ay yu maanaam ay ay ay ay kiimtaan yoo xam ne nii am na ngir mën a yëngal xolu nit ñi loolu xëy na lu baax la dañ ko soxlawoo waaye dafa am fu ñu ko war a defee ak foo xam ne nii wuñ ko ba tey waxoon naa ko ba tey mooy ba tey ci li des ci li des làmboo mooy ba tey jiital discours boo xam ne nii dafay mel ni ak ñaaw njort day fa day xaw a war a war a feeñ ci biir ci tontu loo xam da ngaa gis ne wax ju juunu la ju nekk su du noonu la ñu teg ko ci kaw bopp mën ngay tontu day mel ni discours yu baree bari loolu ci lay jëm kon yooyu yenn la ci yi nga xam ne ni dana feeñ ci biir li discours bi làmboo muy contenu bi mooy ñàkk leeru message bi ci boppam ak kiy wax ci ban fànn lay waxe ak it waxkat yu bari yi ak discours yu bari yi te xaw a wuute ak it concentré wu ñuy concentré wu ci yëg-yëgi nit ñi rek waaye bàyyi xel yi léeg-léegi discours bi du fi jëm bu ñëwee nag ci yi nga xam day dellu ci nit ki ci boppam moom it mën nañ cee tënk yi ñëw léeg-léegi nga gis war nañoo xam ba xam barab sàngam kan moo fay wax barab sàngam kan moo fay wax situation sàngam kan moo ci war a wax ndax ku ne xam na ne circonstance yi ngay waxe day bàyyi jeexit ci discours bi te discours bu nekkee dafa am circonstance yoo xam ne nii moom la moom la dëppoon maanaam jamono ju nekk ak situation bu nekk dafa laaj discours bu méngook moom kon war na noo xool jamono ji tel discours sàngam lañ ci jàllale ak diw moo koy jàllale su fekkente ne tontu la maanaam tey nit dafa attaqué yoonu murit nu war koo tontu kan mooy tontu dafa mat a tànn ndax bari na luy juddoo ci tontu yoo xam ne nii maanaam lañ ci doon saafara saafara su jur jàngoro lay doon ndax dafa am ñoo xam ne nii mën nañoo leeral waaye mënuñoo tontu ndax tontu dafa laaj ko mën a argumenté wu nga am argumentation bu leer nañ maanaam li ngay wax nga mën koo layal teg ko ci fu leer nañ waaye bu fekkente ne da nga nit ki dafa wax nga tontoo na mu waxee rek mooy dese ngaa mën a tontu bu lay fekkee ni daf la attaqué attaque personnelle wax ci wax ju ñaaw. yow war nga koo mën a tontu noo xam da nga koy teg cim xel ba convaincre moom ci boppam mooy dem ba wëlbatikuwaat ñëw di la jéggul kon kan moo war a tont bu nu attaqué yoon wi kan mooy tontu loolu war nañ koo xoolaat bu baax a baax te léegi nag ñëppay tontu ñi mën ak ñi mënul su fekkee ndigal la lu ñu war a joxe ñu ne bis xew sàngam am na ñu war cee joxe ndigal sàngam kan moo war a joxe ndigal li léegi ñëppay joxe ndigal te te nekkul ne ñëpp war a joxe ndigal kon loolu ba tey war nañ koo xoolaat. su fekkee naka sudul noonu dafa am ci biir moo xam ci yoon wi la wala ci biir dëkk bi wala fu mel noonu ñu war koo aaye kan mooy aaye ndax xam ngeen ne inkaarul munkar te mooy weddi lu ñaaw maanaam dindi lu ñaaw même l'islam daf ko wutal ay ay ay ay daf koo defal ay dawaa bi daf ko wutal ay réglementation da ko réglementé nga xam du caagee du ñëpp ko mën a def dafa waram sart yu daje ci yow nga door a war a mën a taxaw ne lii lu ñaaw la nañ ci def nii ak naaw te mooy amru bil maaruf wa nahyu anil loolu defe naa ne léegi nag ñu baree bari dañ koy méngoo te dañ ko mën nañ ko war a su fekkente ne léegi dañoo dem ci jataay ñu ne jataay bii mu soxla mooy ñu leeral njàngaleem sëñ bi ba mu leer nañ ci bopp nit ñi kan moo war a def loolu loolu ñëpp mënuñu ko dañ koy jaawale lu baree bari da ngay dégg situation boo xam la mu laaj mooy ay universitaire ñoo fa nekk ay boroomi xam-xam ñoo fa nekk ay gëstu gëstukat ñoo fa nekk ñoom li soxla mooy ku leen leeral dëgg-dëgg njàngaleem sëñ bi ba ñoom ñu mën cee def seen i gëstu boo fa yóbboo koo xam ne nii ci ay yëg-yëg rek lay waxee ak ñoom ñoom duñ fa jëlee lu am solo foofa dafa am kum laaj kon situation bu nekk dafa war am kum laaj koo xam ne nii moo fa war a wax kon su fekkente ne dañuy tont am na ñoo xam ne ñoo ko mën a war a méngoo su fekkee joxe ndigal la am na ñu ko war a méngoo su fekkee weddi aw ñaawteef la wala dindiw ñaawteef la am na ko méngoo su fekkee leeral la njàngaleem sëñ bi am na ñu ko war a méngoo te yooyu léeg-léeg dañ koy jaxase ci lu xaw a bari beneen defee ngi nii boo xam ne nii moom it am na ci mbir mi mooy léeg-léegi buñ la joxee muhaadara wala ñun la fii yaa fa war a def xutba yaa war a wax ak nit ñi daal da ko war a préparer wax dañ koy préparer maanaam àgg na ci sax yow miy jàngale dañ naan la li nga war a jàngalee suba bokk na ci ni nga koy waajalee da ngay taxaw di ko jàngale doo yow doo mu tëju ci néeg di def kuur bi mel ni da ngaa jàng jàkkaarloo ay nit di ci tàggatu di ko ci tàggatu di ci tàggatu loolu mënta ñ discours dem boo bëggee mu jaar yoon da nga koy bind danga koy bind mbind mu leer nañ wutal ko ay point mu leer nañ waaye ñun bokk na ci suñu discours yi léeg-léeg li ngay dégg léeg-léeg nga dégg nit ne man de xawma sax fu may tàmbalee xawma lu ma war a wax ndax mbir mi nangam ak nangam wala nga dégg ko la man de fii maanaam ooma fi kàddu waruma fee wax mais bu la wóoree ne kay yow xamoo fooy tàmbalee amoo fi loo war a wax da ngaa war a noppi fi la kooku dafa war a noppi wërta wax te loolu miin nañ ko ci seen biir jataay yi mooy kuy tàmbalee man de xawma fu may tàmbalee lu ma war wax sax xawma ko wala mu ne fii ëma fii kàddu ba noppi bëgg caa teg nàngam ak nangam kooku amu foofu dafa noppi mooy la ko war am na ci loo xam ne itam mi ngi ci biir ni koy joxee mooy léeg-léeg ngay joxe discours ba noppi di ci wane ak réere loolu nag xëy na ñenn ñi la ñenn ñi lay gën a dal ci misaal tey ngay waxtaan ba mu yàgg ne man de politique sax xawma ci dara waaye nag nangam boo xasee ba ne xawma ci dara rek boo ca tegee waaye la koy teg ka koy déglu du ko convaincre parce que danaan kii comme xamu ci dara moom li muy wax jarul déglu loolu day day wàññi day wàññi valeur discours bi ngay joxe kon te loolu léeg-léegi nit ñi dañ koy def jafe ne maanaam day day da lay jox kii xay na ma mën naa nekk waaye daal jëmmi discours bi moom bis boo waxee ne li may bëgg wax de xawma ci dara waaye loo ca tegaat ka déglu moom du ko bokk na ci défi yooyu itam ba tey mooy làmmeñu ñàkk a leer ku ne xam na ne ku mënti doon te nga am message wala nga am looy woote fasaaxa mooy éloquence maanaam nga mën a wax sa làmmeñ leer naññ daf cee mënta ñàkk su fekkee wóor na yow sa làmmiñ dafa leeru da nga xam napp la bul yàlla teg kon yow waroo def discours waroo def conférence parce que loolu da nga war am làmmiñ wu leer naññ te loolu tam dafa bari ci suñu discours yi mooy discours boo xam ne nii ko koy jàllale la muy wax fi la xew pour nga xam ko da ngay sonn loolu itam mi ngi ci défilé boo xam ne dañu ko war a relever boo ci yokkee nag problème mu jottali jottali itam di loo xam ne nii ñun ñëpp dañoo jàpp ne fu ñuy waxee dañoo war a jottali ñun ñuy def conférence sax la nga dem barab nit la waxal ma jottali la déedéet ko te kiy jot léeg yoon li ngay wax moom du ko xam maanaam thème bi ngay waxtaane moom du ko xam bu ko defee mën ngaa wax lii moom muy wax leneen discours bi ku nekk xam na ne bu fekkee dafa jóge ci yow directement dem ci nit ñi jeexit ji muy bàyyi wuute naag mu jóge ci yow transité ci kenn doora a jàll ci ñi des maanaam jaar googu muy jaar ci keneen day wàññi dëgëre discours bi kon jot li te fi ne jamono àgg na foo xam ne nii maanaam sonorisation moom nit ñi mën nañ ko mën koo xam ne nii mën ngay wax ndànk mu jëm ca ñëpp di ko dégg kon problème mu jot li tam lu mat a taxaw la xoolaat ko yokk ci nag léeg-léegi nga dégg ñu ne sëñ bi kat waxul loolu ka doon jot li ma wax ci misaal ñu ne di waxul waaye ka jot li moo wax loolu tam day indi nit ñi sikki sàkk ci discours bi kon su fekkente ne sa làmmiñ dafa leerul loolu natt la bul yàlla teg da ngay xam ne kon discours wàcc na la waaye nag nga jël ko ne nañ ma jottali ka lay jottali di wax loo xam waxoo ko wala mu wax nga noo xam ne nii nit ñi bu ñu fa jógee dañ naan sëñ bi maanaam di waxul lii loolu tam ci problème yi la bokk Aïcha nee na fu muy net nee na yónni salaa salaam maanaam waxam fast la woon maanaam saa yu masaan wax ba noppi rek ñëppay comprendre ñëppay xam li mu bëgg a wax te loolu maanaam ci ñi yore woote ñëpp loolu suñu borom daf leen koo jagleel maanaam mooy wax wax ju leer nañ nga xam boo li boo noppee kenn du fa de jóge naan diw lii la bëggoon xol di na ngay wax day leer nañ loolu nag am na jafe-jafe ci biir discours murid gi ci biir discours bi tam am na def beneen jafe bu ci nekk mooy léeg-léegi transparence moo ci dul am maanaam li nga bëgg a wax dëgg-dëgg doo ko wax moo tax léeg nga dégg nit ku ne li ma bëgg wax sax xam ngeen ko buñ ko xamoon kay duñ ñëw di la déglu comme yaa tàmbali wax da nga ko war wax mu leer nañ léeg-léeg gis ko ne la mbir mi kat jërul xuus xam naa ne ngi bu jërul xuus bu ci dugg ndax bu fekkee li ngay wax mënoo ko wax mu leer nañ la muy jur mooy ñu fa jegee ku nekk da koy firi firim boppam mooy waral nga ñu jox ba noppi ñu génn ku nekk ne nii la nii la nii la fekk na bu fekkoon ne da nga cee jaar mu leer nañ nit ñëpp dañu daal di ba xam li nga wax kon loolu tam transparence boobu itam léeg-léegi daf ciy manqué kon nan fexe ba li nga bëgg a wax bu fekkente ne leer na ne lii tomb la boo xam ne nii mënoo koo détaillé ci kanam nit ñi danga koy bañ a souligné bu ko laal ndax boo ko xasee laal te leeraloo ko moom bu ñu fa jógee ku nekk da nga ci am sa firim bopp te loolu tam fës na ci discours yi léeg-léegi beneen na ngi nii boo xam ne am na ci biir discours bi mooy léeg-léegi li ñuy wax ak li jëf day wuute théorie bi ak pratique bi léeg-léeg day wuute ci misaal tey léeg-léeg gis discours kuy jàllee discours boo xam ne li mu ci wax lépp mooy nit ñi alal ji dee leen ko joxe dee leen joxe alal dee joxe alal ji maanaam denc ngeen alal ji ngeen denc nangam ak nangam wax ci lu baree bari waaye moom wan ñu gannaaw xëy wan ñu gannaaw faatu ñu dégg ñu ne bàyyi na ci ak moomeel ak i bagage loo xam ne nii kenn xamul nu mu toll mën naa am sax yoo xam ne nii soxla bu ko woon léegi da ngay imaginer nag léegi moom loolu psychologiquement lan lay def ci nit doon déglu discours loolu tam day am ci discours bi léeg-léegi léeg-léeg gis koo xam ne discours bi day wanee ne àdduna amul solo bàyyi leen àdduna ji jubleen leen ci àllaaxira nangam ak nangam ba noppi yow lépp lu ñu am ci àdduna yow boo ci amee benn moom mu am ci fukk te moom liks bu mat sëkk ci lay dund kooku wax dëgg yàlla bi mu jàllale pour mu bàyyi jeexi bi mu war a bàyyi dana jafe lool moo tax wolof sax dañoo faral di wax ne lu waaye di woote da koy nuru fi la xam mënoo waar mënoo wax ak nit ñi ci mel leen nii ba noppi yow di mel safaan te loolu tam léeg-léegi danay feeñ ci discours bi dana feeñ ci ñiy def conférence yi dana feeñ ci ñuy waxtaan yëpp maanaam léeg-léegi li ñuy wax ak li ñuy jëfe day wuute lool te loolu tam day wax mooy waral nit ñi di dee déglu ba noppi buñ génnee ku nekk dellu ci la nga newoon te loolu itam taxut discours bi jóg kon yooyu yëpp ay défi la yoo xam mi ngi ci biir discours bi yaakaar naa nag mu laaj mu laaj bu nekk ñu xool lan lañ ci mën am ci comme solution buñ ñëwee lañ gis ñun da jàpp ne bu ñu ko defee yii ma tudd xëy na nag lii ma tudd it ñu bàyyi xel ci ne du discours yëpp ñoo mel noonu waaye discours yi ko mel moo tax ñu koy wax buñ ñëwee ci saafara yi njàpp ne mën naa saafara buñ delloo ci njàngaleem lislaam ndonoy lislaam dañ ciy gis maanaam waxin wu siiw woo xam ne ni xel nangu na ko maanaam mantiq logique nangu na ko mooy dañuy wax ne dañ daan wax naan nit ñi bu ngeen di wax ak ñoom la ngeen di wax ak ñoom kem fi seen xel toll maanaam jataay boo dem yow bu ñu la joxoon tey mbir nga war cee waxtaan war ngaa wax ñi muy déglu ñu doon ndax nga xool seen mentalité fi mu toll boo ñëwee nga mën faa wax ak ñoom moo tax ñu waxoon ne xaatibu naas ala xadri xuuli mooy booy wax ak nit xoolal fi xel nit ñi toll nga waxe fa ak ñoom moo taxoon ñu tëgg ci ne place bu nekk dafa am lu ñu fa war a wax waaye wax ju nekk dafa am place bu ko war a waxe moo tax ci loolu boroom xam-xam yi dañoo séddale nit ñi ñetti groupe am ñu ñu tuddee amatu naas mooy masse populaire bi maanaam mooy nit ñi ëpp ci nit ñi mooy mooy nit ñi nga xam ne ay nit nii lañ rek nii ak ñi nga xam ne nii jàng nañ tuuti ñu tudd leen sa ak loo xam ne nii safoo la ñu tuddee mooy élite bi élite élite nag tuuti lay doon. ñett ñooñu nag muy muy mbooloo mi ñëpp général maanaam maanaam mbooloo mi ñëpp dafa am discours bu ñu leen di jox ñi nga xam ne ni seen xel ubbiku na dafa am discours bu ñu leen di jox ñi nga xam ne ni nag dañoo xóotal kawe ñooñu dafa am discours bu ñu leen war a jox. moo tax xel nanguwul nga jël benn discours boo xam ne nii bañ ko bindeek léegi mën naa am ay ati at la yu baree bari dafa am ay circonstances yu taxoon ñu bind ko am mentalité bu ñu ko doon bindal nga jël ko soppiwoo ci dara ba noppi foo dem di ko fa joxe boobu discours mën da jàll loolu moom bañ teel ci bàyyi xel boobu discours bokk ci discours yi mën a jàll xel tam nanguwul nga yor benn discours rek boo xam moom nga yor boo demee université moom nga fay jàllale boo demee ci daayira ba moom nga fay jàllale boo demee foo man dem ci àdduna bi rek benn discours boobu nga yor fi laa xeex discours discours boobu itam mënta bàyyi jeexit waxoon naa ko léegi mbooloo mu nekk dafa am discours bu ñu laaj ak ak ak déggin wu ñu laaj nga waxee ca ñoom bu ma doon joxe misaal foofu discours bu mel ne discours yi Cheikh Abdoul Ahad daan def Serigne Abdoul Ahad mën nañ koo jàppe ci orateur yi gën a mag ci yoonu murit ñi gën a dégg discours ci yoonu murit Cheikh Abdoul Ahad ci la bokk dafay feeñ ba ci tonalité kàddoom kàddu xam ngeen ne ci discours dafa am solo kàddu gi dafa am woo xam ne nii sa kàddu day jóg ci kaw am foo xam ne sa kàddu day digg dóomu am foo xam ne da ngaa war a wàccee sa kàddu mu suufe loolu kuy joxe discours ku nekk danga nga ko war a bàyyi xel Cheikh Abdou Lahad xamoon na loolu waaye rax ci dolli day séddale discours bi discours bi da koy séddale ku nekk liñ ci sa wàll mu jox la ko ci misaal daana def bu waxee kuréel bi muy waxal ba noppi ne léegi dama bëgg ngeen may ma ma waxtaan ak sama bokki taalibe bu noppee day nuyoowaat day baamuwaat nuyoo bi ton bi mu doon waxee tonalité bi mu doon waxee da koy soppi référence yi mu doon jël da koy soppi léegi référence fu mu koy jëlee alquran hadis ak xasida jeex na doodu ko jëlee feneen am na ñoo xam buy wax ak ñoom du wax alquran du wax hadis du wax du wax xasida waaye day wax ak ñoom ci réalité yi ñuy dund wax ci ñoom loolu kuy def discours ku nekk da nga koo war a bàyyi xel nit ku nekk dafa am argumentation boo war a def ak moom sa référence bi ngay jël da ko war a xool par rapport ak ki nga xam ne ni moom ngay jox discours bi seblaat moom loolu amoon na ci lu am solo moo tax discours bi nga xam ne ni murit bi jébbalu ba gëm sëñ ba noppi mën na koo dégg bokkut ak koo xam ne nii moom aslan gëmul lislaam bay gëm sëñ kooku boo ko joxee discours boobu da nga yàq say wax te loolu tam day am ci kii bi kon loolu war nañ koy bàyyi xel moo tax kon sart bi nga xam mënta ñàkk te jàpp ne bokk na ci li mën a joyanti maanaam euh, discours bi gannaaw défi yi nga xam wax nañ ko ba noppi bokk na ca sart yooyu il faut que ñu bàyyi xel ci ne discours bi nay waxtaan ak nit ñi seen soxlay jamono ji ñu toll nii ak lenn solution lañ leen ci proposé ñu war ko mën a jëfe maanaam ci misaal tey war na ni mën a gëstu njàngaleem sëñ bi problème bu mën di posé wu ci jamono ñu wax ceeg taalibe yi ne leen problème bi ba mu posé woo sëñ bi nii ak nii la ci jàngale wu ñu war koo defee même su fekkee sëñ bi waxu directement tam ci biir njàngaleem sëñ bi war nga cee mën a ballulu loo xam ne ay solution lay doon wax ak nit ñi ci suñ toll seen soxla yi ñu am jamono ji ñu waxtaan ceeg ñoom leeralal leen ko ba noppi leeral leen li ci war a mën a nekk war nay sàmmoonteeg tam mentalité ñiy déglu fuñ toll waaye nag foo toll yar yenn xissa yi rek di ko répété di ko wax ci même baat yi koy jëfandikoo foo dem wax ko fa loolu ñëpp xam nañ ne discours la boo xam ne nii mënta bàyyi jeexit jiñ bëgg ñiy jàllale discours bi tam orateur yi ñu koy wax war nañu ne tànn li ma waxoon léegi place bu nekk buñ nee dañ faa war a dem wax ci yoon turu turu tari turu murit gi war nañoo tànn ku méngoog barab booba ñu yóbbu ko fa mu la message bi waaye ñun bu ñu leen tànnee war nañ leen waajal defal leen formation ci ni ñuy waxeek mbooloo xam ngeen wax mbooloo dafa am dafa am dafa am dafa am dañ koy jàng dañ koy jàng àgg na ci ba ni ngay yëkkatee say loxo sax dañ koy jàng ni ngay fixé nit ñi sax dañ la koy jàngal kon wax ak mbooloo lu ñuy jàng la lu baat yi ngay jëfandikoo sax dañ naan la baat sàngam ak sàngam boo koy jëfandikoo ci biir mbooloo bu mu bari bu mu bari ci misaal tey bëgguñu nit kuy wax naan man man rek man man foo toll di wax man bu yàggee ñi lay déglu da leen di sàpp te loolu itam loolu dañ koy jàng maanaam lu ñuy jàng la dañ koy jàngale kon ñi dañ leen a waaj waajal war nañ leen waajal itam ba bu ñuy wax ak mbooloo mi nu xam na ñuy moytoo xuus ci ay mbir yoo xam ne nii mën naa taal safara mën naa yëngal fitna mën naa indi débordement ci biir askan wi ak ñun loolu discours bi ñu yore loolu tax koo jóg war na noo xool tam nit ki fexe ba buy wax lépp loo xam ne ni ak wuute lay indi mu bañ caa dugg waaye wax yi nga xam ne ni moom lañu bokk te man ñoo amal njariñ ñu mën ko jëfandikoo maanaam daal war naa fexe ba par parloo bu mu fés ci discours bi léeg-léeg dana am solo discours bi ñu wutal ko temps maanaam ñu limité ko ci temps ci waxtu xam nga ne nit psychologiquement dafa am diir boo xam ne nii ci la concentration di yam bu ko xasee weesu dootu mën a tarkis dootu mën a concentré wu ci li ngay wax il faut que mu nekk ci yeneen waxtaan moo tax diir bi muy diire dañ ko war a jàngat bu ko defee tomb yooyu boo ko limité ci waxtu dafay am solo loolu tam lu ci am solo la ci biir discours bi bu mu doon discours boo xam day gudd ba ba ñu koy déglu dañuy yokkat waaye bu mu gàttit ba tax la nga bëggoon a leeral doo ko mën a leeral discours yi dafay am dafay am thème tomb bu nekk dafay am ay tomb fi laa xeex ñun da ngay ñëw rek ñu jox la micro nga tàmbali maanaam lu nekk da nga ci wax lu nekk da nga ci wax maanaam boo fa jógee kenn du la mën wax ne lii lañ doon waxtaane te loolu tam bëgg gënul ci waxtaan su fekkee da ngay wax loo xam nit ñi jariñu ci lay doon kon war ngaa tàmm tànn benn tomb boo xam ne nii ci ngay ci ngay ci ngay waxtaan ci wala bokk ci ngay gën a waxtaane te mu doon ngay jëfandikoo li ñuy wax jawaamixul kalim mooy baat yoo xam ne nii day làmb lu bari maanaam nga xam day làmb lu bari ko ci ñaari baat wala ñetti baat discours Cheikh Abdoul Khadir mi ñuy waxtaane tey mën na ci misaal am na discours am boo xam ne ni déglu naa ko boo ko xoolee daanaka ëppul fukki baat wala fukki baat ak nangam maa ngi leen di dénk ngeen jaamu yàlla teg ko ci farata ak sunna te nekk ci jub tey mota tey maslaak ñu ngeen seqal àddina bi mu jeex loolu lu nit doomu aadama bëgg rek mi ngi ci biir maanaam loo bëgg rek mi ci biir te gàtt na loolu te yomb naa jàpp loolu ñiy wax ak nit ñi dañ ko war di bàyyi xel wax ji nag gàtt te tënku te leer loolu nag moo gën a jafe wax ju gudd ndax am na koo xam dañu ko noonu léegi dañoo bëgg nga bindal ñu ci Maodo sàngam ñetti paas ci misaal mu ne kon de dinaa soxla weer ngir bind ko ñu demee ba yàgg ñu ko ñun ko léegi dañoo bëgg nga tënkal wuñu ko ci benn paas ndax dañoo gàtt mu ne kon danaa soxla ñaari weer ngir bind ko tënk moo gën a jafe détail détail ñëpp a ko mën maanaam wax ju bari ñëpp a ko mën waaye nag lu tënku ba noppi leer ba noppi joxe li nga bëgg loolu jafe loolu yombul loolu nag dañ koy jàng ci biir discours discours mel ne discours si Abdou Khadir daan jàllale yu mel noonu dana ci fés léeg-léeg itam bokk na ci itam yi ñu war a def tam mooy waxoon naa ko mooy sàmmoonteeg niveau intellectuel ñi ngay waxal ñu ngay waxal seen njàng fu mu toll baax na ci loolu nga di ko bàyyi xel waaye tam nag tànn baat yi ngay wax yi ngay jëfandikoo am na baat yoo xam ne nii bu koy faral di bari ci sa discours mooy baat boo xam ne nii la muy tekki mooy li maanaam reetaane bari na ñoo xam bu ñuy wax dañ cay dugal baat yoo xam da ngay gëm ne dañuy yéejjee ñeneen maanaam dañuy reetaan ñeneen te loolu itam dafay indi njuumte ci discours waaye itam bu ci bari baat yoo xam ne day mel ni da ngaa yéem sa bopp wax joo xam lépp yaa ngi koy daane waat ci sa bopp loolu itam day tax discours bi ngay joxe ñëpp duñ ci mën a jariñ yooyu daal imam yenn la ci yi nga xam ne nii tànnoon nañ ko defe naa ne mën naa gën a yaatu waaye xëy na bu yi ci ñoom ñu dañ ko li muy tomb boo xam daal gis nañu am na solo ci ñu war ko waxtaanee ci askan ndax jamono ji ñu toll nii nañ ko. waaye itam dox gi ñu dox ngir jëm ëllëg dañ koy soxla woon ndax xam ngeen ne askan ñu ngi koy tabax ci tey sukkandiku ci démb taxaw ci tey ngir tabax ëllëg te lu mu ci mën di doon nag taxaw di wax ak nit ñi wax ju leer naññi def cee mënta ñàkk te discours waxoon naa ko jumtukaay la boo xam ne nii xalaatkat yu mag yëpp moom lañ daan jëfandikoo yonent yeeg anbiya yëpp discours lañ daan jëfandikoo ngir jàllale réformateur yi fi jaar yëpp discours la ñuy jëfandikoo ñi ñëwoon ngir beesal ñëpp. discours lañ doon jëfandikoo ngir jàllale seen message mu jàll ci nit ñi buñ delloo ci discours yéen it daan def bàyyi leen ci xel ci xutbatu xajatul bidaa nga xam ne ba léegi ñu ngi koy jàngat di jariñu discours la woon waaye nga boo ñëwee ci saaba yi déglu discours ba ba Abu Bakar defoon bañ ko falee ne ko yaay jiite ak yeneen discours yoo xam ne yëpp jaar na fi di discours yoo xam ne nii lépp dañ doon def ngir mën a jàll waaye sëriñ bi ci boppam ay discours am soriw fi daan def léeg-léegi mbir xew mu jékki-jékki génn dajale mbooloo wax ak ñoom directement nga xam ne lépp dañ koy dégg nga xam ne wax nañu ne discours bu ma masaan jàll ku fi jógee boo fa jógee maanaam da ngay rocc ko ndax maam da ngay tiit dangay am leneen looy dund yooyu kon discours nañ ko gën a jàngataat baax xool nuñ koy jàllale xool tam li ñuy jàllale ci biir defe naan tomb boobu waxtaane ko am na solo waaye nag ñu war a ràññat le ñaari mbir discours daa am ak sànni kàddu ñun nag discours la ñuy waxtaane léeg-léeg nga ñëw ci barab na ñun nag sëñ bi sànni ci kàddu sa kàddu gu ñuy sànni nag moom wax dëgg yàlla taxul ñuy wax kon daal ñoo ngi jégglu di sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah